رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ قولي لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر يا همة الشيخ عندي فاحضري أبدا الفلت الكل محفوظا من الزلل والزيغ واللهو والحفوات والخطر بين الأنام ومن بعض بالأمل يا همة الشيط إني عاجز وله مني إليك مناجاة ولي أمل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا mi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci yéen di ko wàccee wàccuwaayam ñun ñëpp nañu wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di wax la alxaaji Kawlax waxoon bismillah barhaamu awwaluna barhaamu axiruna barhaamu zahiruna fahwan butunaatu di sant yàlla bu baax ci li yàlla def ñuy jullit def ñu ñuy tijaan waaye def ñu ñuy taalibey Mawlaay Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu euh, ñu fas yéene nag dugg ci euh, guddi gi euh, ci partie bu njëkk bi muy conférence bi conférence bi nag ki ñu koy defal yaakaar naa ne xadara bi miin na ko xam na ko waaye itam tant bi mbil na ko xam na ko muy al alimul allaama al oustaz Youssouf Niang moom moo ñu war a defal conférence bi léegi muy premier partie ci gaamu gi waaye moom mu ñu war a defal waxtaan ci sëriñ ak taalibe sëriñ ak taalibe te yaakaar naa ne loolu mawduu bu am solo la ma Mawlaay Cheikh Ibrahim Niass am ngeen ne téere yu nekk taalibe muy ruhul adab lam cay jàngale mooy sëriñ ak taalibe rek kon nag su tànnee wala buñ tànnee Maodo boobu war ko waxtaanee yaakaar naa ne euh, kenn du laajte lu war a tax ñuy waxtaanee thème mel noonu ndax jotaay bi ay taalibe gi sëriñ ñoo ko seq kon nag war naa xam moom lan mooy rôle am ci sëriñam nit ki sëriñ war naa xam itam lan moo ko war ci taalibeem taalibe yu bëri ñu ngi tarxiis dañoo li leen war seen sëriñ sëriñ su bëri itam dañ tarxiis parce que xamuñ li leen war seen i taalibe nag ak oustaz Youssou Niang danañu waxtaanal ci sëriñ ak taalibe ñu sàkku ci mbooloo mi yépp nag ñu fas yéene déglu conférence bi deuxième partie bi incha allahu mooy a Cheikh Baye Mahi ibnu Cheikh Ibrahim Niass moom mooy nekk deuxième bi ci gàmmu bi dana ñëw taxaw taxawaayu Seydi Cheikh Mouhamadul Mahi nam daan def waxtaan ak mbokki taalibe yi ndax moom mooy Cheikh Mahi tey ci jotaay bi loolu mooy nekk deuxième partie bi bi nag mooy Mawlaaya Murabbil Qawmi Oustaz Ahmed Ba moom moo koy féetewoo kon nag guddi gi noonu la war a demee ñu njàmbaas koog ay tudd yàlla nag ñu ràbbalante koog si kàr waaye guddi gi daal nii la war a tëddee. première partie bi conférence la ak al Moussa Youssouf Niang deuxième partie bi Mawlaay Cheikh Baye Mahi ibn Cheikh Ibrahim Niass mom mokoy doxal ci waxtanam ñi nga xamne xam ngeen ko parce que daw jaar na fi ma troisième partie bi nak moy ci feebar bu lolu paré moy Mawlaay Oustaz Ahmed Ba mom moy féete woon la ca dess bëgg digi jeex ñi wax ñëpp nañ fexe incha allah teewlu mbir yi niñ ko waxee noonu léegi li ñu def mooy dañu jox suñu mbokk cheikh mohammed cheikh eh, eh, eh, mohammed lamine silla moom mu jàngal ñu alquran su ko defee ñu jox al oustaz mu dugg ci conférence bi di la wax cheikh baye maa fi ñëw na mu ngi fii mawlaay mu rabbil xawmi ahmed ba ñëw na mu ngi fii moom itam Euh, ñoom léegi tey ñu war a agsi ci jotaay bi ñu ngi leen di xaar di nuyu bu baax suñu ñaari yi nga xam ne jot nañoo ñëw muy Cheikh Tidiane Thiam di al muqaddam waaye ak suñu mbokk Cheikh euh, Kébé nekk ba Ziguinchor dafay liggéey liggéey bu am solo xam ne guddim googu moom itam Mawlaay Oustaz Ahmed moom moo koy taxawee ak mu jot. ci digalal papa cheikh al khalifa mi nga xamne mo moom lañ tuddee jotaay bi te loolu yëpp dana ci ñëw inshallah euh ñu ngi wax ñepp bismillah al ustaz euh ndaw ma sha allah di jangale kat kat jàngalekat yarekat euh, nekk fële ca alqalam ca aéroport mu ngi ci jotay bi ñu koy bëggé bu baax di bëggé mbooleem sànq yi nga xam ne ñëw nañ ci goor ak i jigéen الشيخ إبراهيم نس أبناء وأحفادا رجالا ورجالا كبارا وكبارا سواء قد حضرة الحضرة الإبراهيمية سواء الأساتذة أبناء الشيخ إبراهيم نس أبناء دائرة الأولاد اسمحوا لي قبل كل شيء أقدم لكم أثناء تحية من أقصى فؤاد مني إلى حضرتكم ميمونة الموقرة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة الذي على في ذنوبه ودنا في علومه وسبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقدره لو كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النور المطلسم عين رحمة الربانية محقق الحقيقة الإلهية طاقة كل مخلوق وسر كل موجود منبع الأنوار ودواء الأمراض عين المعارف الأقوم الوسيلة العظمى سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم إن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا رسلا ليبينوا لنا شريعته وبعدهم جاء علماء جددوا لنا المفاهيم والمعاني ومنهم الشيخ إبراهيم نس الذي أسس مدرسة خاصة لتزكية النفوس عباد الله بالمحبة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا صلح ما بينكم وبين ربكم فقد بلغتم الغاية في إكرامه وكان دائما يوصي أحبابه أن يستقيموا في عبادة الله بمداومة الصلاة مع الجماعة والذكر والإنفاق لوجه الله لا لعرض وأن يجتنبوا خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر نصلي كما كان النبي مصليا نصوم كذا نخطو سبيل سميدا وننفق لا نبقي نريد صلاته نحج كحج الهاشمي متبع وتكرر حقا لا اله سوى الذي له الخلق الامر العظيم متبع ولا سبيل اذا هذا الحظ بدون وسيله لان سالك الناسك لا يصل الى حضره الله وحضرات صفاته واسمائه ولو جمع علوم الاولين والاخرين وصاحب طائف الناس وعمل عبادة الثقلين إلا على يد أصحاب الإذن الخاص كما ذكره الشيخ عمر فوتي في رمح واتبع سبيل من أنا إليه ويقول الشيخ إبراهيم في نفس المجال واصحاب كل قرن هذا جمع الشريعات والحقيقة غير واحد ولا قبل لقاء هذا الشيخ أن يتحلى بمكارم الأخلاق وأن يكون همته أنعم والعبادة والصلاة على النبي قلبا وقالبا زالقي لقي هذا الشيخ الموصوف يجب عليه أن يكون أمامه كميت بين يدي غصان وأن لا يخالفه ويكون مسيرته بين بقدمي الصدق والمحبة والحضرة الحضرة أن يسحب من يناديه لأنا لأن أول ذنب ذنب إبليس لما رفض أن يسجد لآدم وقال وقال أنا خير منه wala tasxaban cheikhan yunaadika lil ana innal ana qad zajja iblisa takima asalaamaaleykum wa rahmatullah wala bi ñu ngi sant yàlla di si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi teew ci jotaay bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi ci jëkkee njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim eh, ñoom ñoo suñu sant ndax Mouhamed Moussa waxoon na ويورث الأبناء maalan fa innahu nasibuhum fi l-irsi ilmun wa sudda mu ne su fekkee am na ñoo xam ne doon nañ alal mu ne njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim seen ndono dëgg-dëgg mooy xam-xam ak cëngeel loolu mooy seen ndono ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem kilifa yi nekk muqaddam yi ustaas yi ak mbooleem mbokk taalibe yi nga xam ne ñëw nañu teew ñuy fàttalante rek ndax arab yi dañuy wax asaidu man warisa wala man waadahu xayruhu ku texe mooy koo xam ne ku dul moom moo ko waat ki lay waat nag daf lay waaree jëf wala wax waaye dugg lim lay wax xamoo ko waaye na daf la koy fàttali rek alxuraan daf ñu ne wax ñu bis melal ñu bis penc ndax yeneen te wax na tamit ne al kay al kayisu man daana nafsuhu wa amila lima ba'dal mawt ki muus mooy ki peeg noot ba kanam jëf-jëf boo xam ne moo koy jëriñ bu demee ba nga xam ni génn na àdduna maanaam dee bi nga xam ni moom lañ xam foofu nag li fay jëriñ yéen bi wala alxuraan wax nañu ko yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaah bi qalbin saliim bis boobu lenn moo fay jëriñ bu alal du doom ndax innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna la alxuraan wax mais lenn moo fay jëriñ mooy xol bu mooy xol boo xam ne dafa mucc ci bépp ayib xol buy mucc ci ayib nag mooy jot xam-xam yàlla ndax Ibn Abbas xam ngeen moo lay axirul ummat mooy fóode xeet bi yàlla moom bu ñu firi alquran Ibn Abbas dem ba ne wanzala mina samaa'i maa'an fasaalat awdiya dafa ne ndox buy jóge koo ci asamaan mooy xam-xamu xam yàlla wala xam-xam buy jóge koo ci yàlla mu ne awdiya yi ndab yi wala xur mooy xobu jaamu yàlla yi nga xam ne dafa sell sellal xol nag mooy ñu taskiya mooy ñu sellal la laxas sa xol ba mu set kem sa mbubb bi téewoon ñu fóot ko ba mu jigi danaa mel ni kuy doon gane àdduna su boobaa xam-xam boobu dafay wutee xam-xam bu ñuy jàng ci téere yéen it wax na ci xadis ne al ilmu ilmaani ilmu lisaani wa ilmu qalb amma ilmu lisaani fa zalika hujjatullahi ala ibni aadama wa amma ilmu qalb fa zalika al ilmu naafi' mu a ñaari xam-xam mu am xam-xamu làmmiñ ak xam-xamu xol xam-xamu làmmiñ mooy lay yàlla ci doomu aadama waaye xam-xamu xol mooy xam-xam buy njëriñ moom ngeen dégg euh, waa ji Ibnu Farid Sultaan di wax naan safaahum wala maahum xam-xam boobu de dafa tooy waaye du ndox nuurun dafa leer wala naarun waaye du safara wa ruuxun wala jismun safaahum wala maahum wa nuurun wala naarun وروحهم ولا جسمهم وروحهم ولا هم على ذلك وقت من دفع نوعي وعي مجنو دفعي دفعي جندو وعي ما لي بديم وروح فقدم كل الغاية إلى الحديث قديم لا شك من هناك ولا رسم من خم خبوه مجيد مول خم خمي وهو بنت أمون بنت أمون وقامت بها الأشياء اسمه لحكمة بها تجبر عن كل من لا له فهم من بوه لجيب تنبيه ñu daal ne kiiraay xam-xam bi duñ ko jox képp koo xam ne amoo dégg-dégg mooy fuuxum yi nga xam ne moom la ñuy wax yénti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas li mu rawee ni ci yénti moo teg loxo ci bopp ne allahuma faqihhu fi diini kon nag faqihhu fi diini boobu mooy dégg diine xam-xam boobu nag moom la wax tasawuf tasawuf firi yi dañoo bëri waaye ñun bi ñu doyloo rek mooy bi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane firi laaj nañ ko lan mooy tasawuf mu ne ak tasawuf yàlla mooy na tasawuf imsaalul amri wa ijtinaabu nahyi fi zaahir wal mooy sa jëf yi dëppoo ak li la yàlla digal li la yàlla tere nga bàyyi ko nga topp ko ba ni nga xamante ne moom noonu la gërëmee waaye yow ni nga gërëmee loolu. mooy xam-xamu tasawuf xam-xam bi nag li ko tax rek la mooy jàngale ci ihsaan ndax yéen yàlla waxal mos na ci biir ñëw di ko ngir jàngal saxaab wax ko ci lislaam wax ko ci limaan wax ko ci lexsaan mu ne al ihsaan ko taabudallaaha ka'annaka taraahu nga jaamu gis lam takun fa innahu gisul ñu lay gis xam-xam la yàlla moo koy sotti ci xolu jàmm waaye gannaaw bu ñu moom li mu xam ci diine ndax ilmu zahir moo yóbbu nit ci mafahim bi ak ci ilmu baatin masro benn taam yàlla woon mu ne sahibtu ashaaba rasulillah ashaaba rasulillah foo jottuhum ka axazatin lenn qulubahum kaanat waariya bima ruziat min safaituhum man dama àndoon ak saxaaba yàlla yi saxaaba yéen ma fekk ni seen ñoom dañoo mel ni benn jëmm ndax yàlla daf leen mayoon dañoo déggoon diine ndax dañoo seetaloon ñu ne xam-xam boobu suufi yow ñoom fi ñu ko jëlee fa suufee taxaw ba xasal mi ilmi daraas dañoo jàng fa la maa amilu maa alimu afaadahumul amalu wa ilmul wiraas ba ñu jëfee li jàng yàlla subat ko seen xol xam-xam bi ñuy doon mooy wiraas Muhammad ya lay xam-xam bi dañ koy doonante xikma bi njëkk bi nga xam ne moom lay wax balaa ñu dugg ci thème bi mooy yàlla li tax mu sàkk yenent bi ne ko lépp lu ma sàkk yow la yéen salaa salaam nee awul shay ma sama leer yàlla moom la njëkk sàkk wa min te ci sama leer xuliqa kullu shay ci la yàlla sàkkee lépp amal lépp lu muy amal kon yéen yàlla Muhammad moo fi jiitu nekk fi ndax amam li tax ibn arabi tuddee ko xaqiqa muhammad ya mooy dafa dëggal benn am am bu ko jiitu woon waaw kon lan moo tax ba ñëwee ci fii di rek yàlla yemal jibril ne ko yow yaay dem jàngal yeneen ci yàlla wax nag Moussa bila wasta wax ak Moussa wax ak moom Moussa di ko dégg ba yaram yëpp di dégg te amul intermédiaire te ñëpp xam nañ ni yeneen bi yàlla yéen yàlla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam yàlla ci li ko may may ko yéen yàlla Moussa kon Moussa fan la jëlee waxat a directement te yéen tamit di wax di jàpp ci loolu foofu la waasina njëkk jógee mooy yàlla dafay jàngale ne nit ki lépp loo ngeen am yéen xeetu yéen tamit da ngeen am ci intermédiaire ndax bu ne ak am seen sharia waaye yéen seen ngeen am dafa am ci ngeen koy koy jëlee kon foofu la ñu njëkk a waxee ne dëgg-dëgg kon xam-xam lislaam xam-xam la boo xam ni mënoo ko am lu may defaan foo koy jëlee. sëriñ firi yi na waaye bàyyi ñu ko firee rek mooy ku pare ci boppam taalibe ni ñu koy melale mooy koo xam ne dafa namu egg ci yàlla te yàlla jaral ko lu nekk mu génn ci limam loolu rek mooy firi ñaari yi sëriñ ak taalibe su fekkee dafa dem ci ñenn ci borom xam-xam ku mel ni Imam Ghazali moom dafa wax ne at tey fardu ayni la mooy nit ku ne dangaa war a am sëriñ mu neex la mu naqari dangaa war a jóg utal sa bopp sëriñ moom noonu la ko waxee ndax Imaamul Xasaali ñëpp xam nañ ne moom borom xam-xam la woon ci jamono bokkoon ci borom xam-xam yi gënoon a nekk yàlla may ko xam-xamu zaahir nee na ba mu jékki-jékki benn bis mu laaj ko foofu benn laaj ndax tey ñu ngi daan 1 plus 1 égale 2 2 plus 3 égale 5 waaw lan moo tax. cinq ñu tuddee ko cinq tuddee ko un un bi tuddee ko cinq tuddee ko un lu tax góor suñu wax ñu ne ko raju te tuddee ko madame bu fekkee da nga dem ci nit dañuy wax ne ñoom lii convention la rek bu ñu dajalee pour nit yi mën a am làkk mais ba tey moom muy laaj koom lan moo tax lii ñu koy wax lii benn ak benn ñaar la te lan moo tax ñaar ak ñaar tuddee ko benn muy laaj koom laaj yooyu nee na mu dem ba benn jamono moom bu xoolee benn wóolootul xam-xamam ne lii mooy benn. Imaam Ghazali foofu la jaar di posé ko ay questions yoo xam ne xam bi nga xam ne nee nañ ci jamono moo ko tontu Imaam Ghazali nag foofu la demee nee nañ tëdd ñeent fukki fan bu mu génnee nag ci la ne foofu laa jëlee benn xam-xam boo xam ne moo ma xamal moo lay xamal li ëpp ci xam-xam yi xam-xam boobu mooy yàlla leer bi nga xam ne daf ko sànni ci xolam waaye nag Imaam Ghazali loolu xamal ko ne moom xam-xamu biir am na xam-xam bu gën a wér xam Imam Ghazali dafay dem benn bis di julli ji am benn soxna di ko laaj benn masala mu tontu ko fekk juum na ci tontu bi mu demee nag ba ci biir julli bi di jiite nee nañ mu kabaar julli ba noppi rakkam jub kabaar ci kaw wala ni kii doy ma imam Imam Ghazali daal di jub dem seen kër boole ko kii dafa may doy de ndax maa ngi toog di julli ñëpp li ma dégg mu ne ma doy mu ko ñu laaj rakkam bi mu man kii ba muy julli dama gis yéen ci tàq deret ma xam ne kon kii julleen di wéru kon man su ma ci ginnaaw man di wér rakk ji ba mu waxee ni ndeke moom bu muy si daf ko laaj benn masala ci ci ci ci mu daal di koy mu daal mu jiw ci ko tontu foofu la xam ne xaatiram boobu daw nee na topp ci ginnaaw gis na ko foofu la commencé xam ne kii ñii am a xam-xam boo xam ne wute na ñun a xam-xam bi mu ne ko dangay dem ci benn boo xam ne mi ngi nekk fee bi uude la xam-xam bi imam Xasaali dem ñoom ci ne ko xam-xam bi laa bëgg uude bi ne ko xam ni ko gis rek di ko màggal ndax ñoom dañuy làqatu mooy li Amadu Faari wax daal di ndax yàlla bàyyi leen subhaanallazi axraja na xukmuhu li kay yu bàyyi la toujours ak jamono mu ne maa ngi tudd seen ki nga xam ne xereñ teefam moom lëf mbir yi ngir cër yu màgg yi mën ko xëccoo. imam Gasaali ñu ci ude bi ude bi ne ko xam-xam baa ngi nii xam daal di mu ko man xam-xam xam yàlla laa soxla mu ne ko loolu dama fi daaw waa ji dem dem xolam nangu ko jàll ndax xam na ne li muy ëpp am na fi waaye waaye nangu ko jox imam Gasaali xëy suba ne ko nag dinaa la ko jox waaye dama koy jox ak ko yóbbu la ci ne a muccal nii imaamul di raxas duus muy dem di ko raxas di ko raxas ba benn bis sa ngoon sëriñ bi boobu li mu bëgg def ko bu génne ci moom xëggu riyaasa ci ak rëy ndax bu dee dañ lay màggal di nga dem ba mujj gi di nga teg sa bopp waaw bis nag ñoom xasaan yi sëriñ bi ñëw téye ci nopp bi di xool douche yi yëpp seen bopp mu xool yëpp fekk seet nañ moom des benn mu ne bii nag moo tax dara soo ko ñoom xasaan yi ne ko bale bi mu ko doon raxasee moo jeex moo tax dara soo mu ne ko lan moo tax sa góor nga jël sa sikkim bi nga raxasee ko bu dee mën naa si sëriñ li ma la wax daf laa war a jëloon nee na imaam Xasaali sëkk jël sikkim bi di raxas gis bi ndax xam ngeen ñoom seen sikkim bi daan mel foofu la ko yàlla gis boobu mu am fatu daal di def xatta ya moom tu bis saa yi di zamaana wala wax nañ sax wax bi am nañu ne moo am nañu ne beneen way xatta ya moom tu bis saa yi di zamaana wala an aana xat sa fekk bi maa yi man sala mut waxal di fi ne wala xaar faatixa laa li amaan mu a man dama naan tiimee texe tey nag man naa ndox mooy ne li ma jàppoon ni mooy xam-xam bi ma yóbbu ci yàlla nekk xam-xam dafa doon tegtal xam-xam waaye xam-xam nga yóbbu ci yàlla faaw rek am ko ci loxo sëriñ ndax téere bi la mu mën a jàngal wax nañ ni Cheikh Tidiane man euh, bibliothèque benn téere moo fa nekkoon gannaaw bu mu déggee lépp mooy xasinatul asrar te sax am nañu ne deewu waaye daal li mu gëmoon mooy xam-xam ci dënnu góor yàlla yi la nekk bu amee fees lu leen a jàll wante lu ko ba war defaatee fa ya ay dalaal yi moom imam Xasaali foofu la jaar boobu sëriñ waaye sëriñ ki ko ut mooy ki nga xam ni dafa feebar te xam ne dafa feebar mooy taalibe léegi nag murit dafa am lu mu war a mel ba dugg rek ne maa ngi ut sëriñ balaa nga wut sëriñ faa war koo jaar ba mu jigi nga xam ne dëgg-dëgg sëriñ dana pare pour liggéey pour dimbali la danañ ko mel la indi juróomi point bëri na waaye tënk soo jugee na mu dem ci yàlla sëriñ mooy liggéey mucc uti bu ngeen seetloo téere tasaw fi li si bari li si ëpp balaa ñu lay wax sëriñ day fekk wax nañ ne jàngal nañ la tasaw boo dem daanaka sëriñ moom la def ci point bu mujj dafa la jàng nan ngay mel balaa nga naan man war naa ko sëriñ nan laay nan laay mel d'abord balaa ma jub sëriñ li njëkk nañ ne ne da nga gàddaay gàddaay suñu ko waxee dafa dugal lu bëri du rek gàddaay nga jóge sa jëm jóge fii jóge bërëb dem bërëb waaye al hijratu min al xarakaati masmuti masmumati ila al xarakaati mahmuda mooy na nga gàddaay ci bépp jëf boo xam ne dañ ko ŋàññ sikk ko jëm ci ay jëf yoo xam ne yàlla dafa gërëm gàddaay nag bu di waxoon na ne képp koo xam ne dangay gàddaay li tax nga jóg di dem mooy alal wala àdduna loolu nga ci am waaye bu dee dangay gàddaay te yàlla yàlla teel kon nag bàyyi lépp loola nekk jublu ci yàlla moo taxawal ni Cheikh Baye boo fa jógee nga taxoo osla mooy xollu mbindeef bi yéen salaa salaam dafa mos a bis moom ak saxaab yi Xusay Fata bokkoon na ci saxaaba yi nekkoon ci yonent bi nee na kaana naasu yasaluuna rasuulallahi anil xayri wa kuntu asalu ani sharri maxaafatan an yudrikani nit yi dañoo laaj yonent bi ci lu baax toujours lii su ma ko defee la laay lii su ma ko defee la laa naafile bi su ma ko defee yan yoon laa mu ne ma pour sa lu wàññi chale ma xam sama jullikat yi mu ne ma toog man di ko laaj ci xay yi ngir ragal loolu daf ma mu ne yaa rasulallah ku naa fi jaahiliyatin wa sharrin fa jaa allah bi hadal xayr wa hab baada hadal xayr misali yéen tamit ñun dañoo nekkoon ci jaahiliya nekk ci bon mu taal yàlla indi ñu xéwal bi est ce que gannaaw xéwal gi dina amaat yiw dina amaat ay bam mu ne ko waaw mu ne ko est-ce que ay boobu bu demee xéwal dana ñaan mu ne ko naam bu fii doxul waaye dañ koy ñaan mu ne maa doxul yaa rasulallah lan lañ koy ñane mu ne xeet buy woote naan ñëw leen ci diine gi li ma diine te li ngay woo loolu sama diine dina am li nga gis mu neex la comme dina am li nga gis mu naqari la mu ne ko sibhum lii yaa rasulallah Xuzayfa ne ko yéen it bëgg naa nga may la laal ma ñooñu bu ñëwee maa xamal ñu ngi tatagal baaba suñu waa ji waa ji Saliba ak mboolem mbooloo bu ñaan maa xamal waaw. ايوه ونكون في جاهلية مسلم فجعل الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير مسلم bu ko waxee ne ko am na xeet boo xam ne dinañ ñëw sama ginnaaw dañuy woote waaye li ñuy yóbbu sama diine dina am lu ci neex kenn des na ne ko may la ma ne mu ne boo muy jiite dinaa ay arab dañuy doon ba takkal la ne ay dinaa te arab dañuy wax mu ne ko da doon digal su ma fekkee noonu maasaa tàkkoon ni dina dëgg ni xaasaa mu ne ko nee nañ ci ci ginaar gi rek lépp ñu naan waaye ko xam-xam xaj ci bopp ginaar kon ak ak. Euh, benn wala benn muqaddam ci mu tey dafa toog di dem ci ay muqaddam baay yi nga xam ne dund nañu ak baay mu dem ci ñett ci dëkk moom Maodo Moussa yi kenn ci Cheikhaane ak benn muqaddam mu ne dafa leen laaj ku ne na ko denc ci benn xisal bu am ci ci baay Maodo Moussa yi ne ko man de baay mos naa toog mu ne bu dul woon ak yeneen ñu xam yàlla su dul woon ak Cheikh Tidiane bu ñu xam yeneen waaye bu dul woon ak sama gars yi daal bi ñoom Maodo Moussa yi ak ñoom. kon kenn ku xamul sax maanaam bu mu woon ak bàyyi xam nga loolu. arab dafa ne nga naan analyser sa bopp ci taxaw di wax man la man du moom waaye balaa ñu wax man la gars yi mu seqaloon ñoo leen jëloon moo tax waaye néew man dafa ne gars yi ñu mën taa jox ndax da ngay gëj rek mooy bu ñu woon ak bàyyi kenn xam dëgg la Cheikh bi jàll. bu dee ci Cheikhaani Cheikhaani ne ko man de mos naa nekk ak bàyyi ci jalaale ba jékki-jékki waaye ca kanam tàmbali ku dégg déggul. nee na mu jékki-jékki rek rajo bi daal gannaaw dégg mu orienté bu mu orienté ci xam naa am bi rek affaire bi tàkk mu ne subhanallah ak istiqaamatu nafaat xataa nafaat rajo mu ne istiqaama de jëriñ na ba jëriñ rajo mu dem ci ñetteelu xaddam bi waaw. la فلا sëriñ lu leen wax ngeen def loolu pour wax man ci daayira bi laa bokk wala sàngam bu ñu leen waxee rek def leen loolu ngir yàlla may koy ñaan parce que ñoom tam loolu moo tax ñu nekk fii yow defal lim la wax defal lim la wax léegi ñu ñaan borom bi surtout ñu organiser ñu toog ñu organiser rek wala ñu yor sécurité yi maanaam liggéey liggéey bi ci des ñëpp nañ toog ci baar yi parce que loolu mooy taaral bi nawet yi ak ñeen def nii ngeen bàyyi

mais su fekkee dafa am ñu doon adab njabootu bàyyi ñoom xam-xam nañ doon ak teggeel ñu ngi nuyu mbooleem ñu ngi teew waaye nuyu Seydi ba Mawlaaya al-alim al-allama Abdul Ulum wal Aswaqi saas ba xam ne defe naa ne koy wax boo sar ba teew rek daanaka wax ñëw na ñëpp moom la ñuy bëgg a dégg borom xam-xam ne ci fànn yi waaye xam-xam bi wax day wax soo koy dégg loolu sa nopp sa jëmm yi di ko dégg bu mujj bu mujj sa yaram te doo xam li ñuy wax lan la même bu ngeen bokk nag wax ci kanam day xaw ak doomu Fapal yi waaye maa ngi nga xam ni borom xam-xam bu mag la damay tënk rek ci ñaari minute daanaka sax muhaadara jeex na wala waxtaan bi ndax dañ doon wax ne sëriñ da nga ko te balaa nga ko dafa mel yoo rawahum li abaa'ihim wa huwa aqsatu inda Allaah yooyu yàlla ba mun a foo dugg mukk te amoo ku taxaw ci bunt bi mën laa téye yéen tamit moom mooy joxe ñi jox ñooñu jox ñeneen ñooñu ko koy seet fekk amoo koo xam ne moom moo la téye jox la rek wala muy mel ni robinet bi nga ubbi robinet bii nga ubbi nii sa kër bu xëy dafa jox ci benn robinet bu nekk ci xel su fekkoon dafa am fu bëggee yow boo ubbee doo am kon nag sëriñ bi nga jox mooy sëriñ bi nga xam moo lay jox la ci yeneen yàlla du la laaj yeneen bi lay laaj yeneen bi laaj yeneen am ñu laaj bu kon nag sëriñ dafa war dara fooy jaar ngir sëriñ melo sëriñ wax ko ñu wax jaaral rek ci ne sëriñ boo ko nga ànd ko ngir dara lul yàlla da ngay ànd ak moom ngir ne wane la pour ànd ak moom ngir dara dara su ngeen seetloo borom bi dafay nettali ay xekaayat yoo xam ne benn waay yàlla wala ñi nga xam ne dañu seen seen ay mbir jox leen ko te yore wuñ ko. waaye fi mu jël bu ko nette kon sëriñ Balla moom bu ko wax lii ma bu ko wax kay waaye na fekk mat na sëriñ baax bu fekkee da nga ànd ak moom te matu sëriñ dama lor sa bopp na nga moytu boo xam wàññeeku wàññeeku jëmmam ndax iza arada Allahu an yu'adhiba waliyyan min awliyaa'ihi tawa'antu wujuuda bashariyatihi wa asharaka wujuuda xusuusiyatihi yàlla su ma bëggee woon kenn ci gaayam bi day fexe ba yow toujours kamaleetum rek ngay gis bu orma mukk rot sa kanam mooy Serigne Touba de moom bu mu génn àdduna nan ngay def ñaar rek la sa pas-pas su fekkee wér na te li nga doon ut am am nga ko kon nag yow toogal sa kàddu su fekkee nag li nga doon ut amoo ko maanaam da nga doon jàng bu lay jàngal bu génn àdduna te ko keneen ko jàng waaye su fekkee da nga doon ut ci moom yàlla man de bi ma gënal ma gis ko ci ca naan santam def naa ñëpp xam nañ histoire am moom ba mu jokkoo ak Serigne laaj ko benn laaj masala yàlla bi nga sàkk doomu aadama ci meloon te naan santam moom mu laaj ko sëriñ mu war ko toog ci moom moo koy nettali ci laaj na nee na sëriñ ba mu gaañu mu toog di xidmaat sëriñ ba di jaay ndox ngir dundal njabootam nee na ba sëriñ bi gaañu mu toog di xaar ba nga xam ni dëgg-dëgg bu xam ne ni kii dëggu la ci la génn sëriñ bi daal di daal di wax ne ko lii soo ko soxlaa demoon nañ la bàyyi kenn ne du bàyyi ci la doon ci bàyyi moom pas pasam bu wóor waaye bu ñu woon tànn boppam nag du am li ma kon nag ñaar la su fekkee da na waaye boo toogee xaar bëri na ay kakaay yu ci am nga xam ne dañ leen koy mën su fekkee ne sëriñ bi wax na ni sëriñ man de su nga demee ba ku ma gën a kawe bàyyi leen ma fi nga def nga wax ni li may ut sëriñ bi amu ne la wóor ni amu ko ndax sëriñ mën naa am li ngay ut waaye yow meloo melo boo xam ni mën na la ko jox ndax ñu sëriñ boobu duñ ko sàrxe su fekkee ne dëgg-dëgg maanaam ñu ne man talaba wa jadda wa jadda su fekkee dëgg-dëgg nuyu foofu waaye melokaan bu tax daan ko fi kaw su fekkee ne dana dem ba gis ne dëgg dëgg li nga soxla nekk ci bi ndax waaye waa Cheikh Diagne gis ngeen kenn xamu ñaata leen dugub yàlla àndal su boobaa la def waaye bu ci boole wax nga jàpp bu bëndale ndax le xaw ma ay yeneen wax mu moom wala laa ji sañu àq buur yàlla nee na buur yàlla seen ndey seen ndey dañ koo tooke soo leen noonoo rek bu ëllëgee dafay sa kaw kon loolu la woon ñu ngi nuyu ñëpp di doon wax ci gàtt xam-xam di nuyu waa ñi ñu déglu di joxe kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh لا إله إلا الله